ñu tëj boog lenn wala benn morgue bu ëpp ci wala bokk na ci yu ëpp ci mim réew muy morgue bu hôpital Aristide Le Dantec foofe nag lu mu néew néew juróom fukki néew ak juróom ña fa di xaar ñu daal di leen a jëbal seen i borom altine bi ñu dëgmal lu nag jëm ci lépp luy euh, autopsie liggéey boobee hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff lañ daal di dénk bu dee nag am na ay service yàcca foofe ci hôpital bu euh, Grand euh, Le Dantec foofe nag am na ñoo xam ne xam nañu fu ñu taxawee waaye nag lu ci ëpp ci ña fay liggéeyee ba tey xamuñu ñoom fu ñu taxawee ndax dañ leen ñu toog seeni kër ñu xaar ay liste ngir ñu wax leen fa ñu mën a jëm ngir liggéey ca Fatick ña feebar foofee dañoo amee njàqare ndax mënuñoo fexe ba ñu opéré leen li ko waral mooy bloc opératoire bu foofee dafa dal di màgget directeur bu hôpital bi nag dafa sax ne am na benn bloc bu bees bañ fa war a amal ca maternité ba projet bu jëm ci licencié ay liggéeykatu Expresso fi ci Sénégal nag ndax ñàkk koom-koom loolee nekkul lu am warul ndax seen syndicat société boobu nag dafa jàpp ne euh, Expresso nag am na koppar bu doy te dañoo fas amal seeni grève lu yàggul dara ñaar pàcc xibaar yi dañu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ci tàggat yaram ci technique bi Abdoulaye Diop may sa mbay moo fara ci digital bi asalaamaaleykum. Seydou yàggatul ñu daldi toxal service hôpital Dantec bokk na nag ci service yu mujj jóge foofe nag wala yu fay yuy xaar ngir jóge fa di morgue uh, bu hôpital ba uh, foofe waaye nag foofu nag lu mu néew néew ci tiroir yi wala ca morgue ba uh, am na lu mu néew néew juróom fukki néew ak juróom ay mag ak i ndaw ñu war leen jëbal seeni borom altine bi ñu dëgmal ñu sax tàmbale procédure ngir ay autorisation ñu dal di ko amal lu nag jëm ci lépp luy autopsie hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff nag di ex-CTO moom la ñu jox liggéey boobu ñu déglu leexali docteur Ibou Thiam moom mooy chef service bu morgue euh, bu médecine légale ak Makumba Bey. yeneen service bi aussi morgue bi day day fermé déjà il y a quelques benn benn corps donc comme les autres services euh, morgue bi aussi day fermé bon aujourd'hui nag il faut le signaler actuellement si biir bi am na cinquante cinq corps yoo xam enfants et vingt cinq adultes mais ñu ngi xool feeg lundi lu ñuy mën a def ba ba denc leen parce que souvent c'est des inconnus ay nit ñoo xam ne amuñu identité quoi donc identifié wuñ leen. ci lu jëm ci wàllu autopsie yi nag xam nañ ni yéen daan ngeen ci def lu takkoo takku kan mooy kan moo leen ci aw. soo xoolee à donc am na ñaari hôpital yoo xam ne nii fi lañ doon pratiquer autopsie muy hôpital général Idrissa Pouye e l'hôpital Aristide Le Dantec bon aujourd'hui hôpital dina tëj c'est vrai que li ñu def ci autopsie bëri na donc mën nañ ko xayma ci pratiquement neuf cent autopsies par an en moyenne mais je pense que en attendant ñuy aménager yeneen salle d'autopsie au niveau de Dalal Jàmm et au niveau de Grand Yoff je pense que ne hôpital euh, général de Grand Yoff dinañ mën a continuer autopsie leneen ci laaj mooy gannaaw ba ñu tëjee hôpital bu danteeg nag ñafay fay fa ñu war a mën a jëm lu ci ëpp nag xamaguñu fa ñu taxawee Euh, ndax direction ba moom moo leen laaj ñu dem toog seen i kër ñu xaar ñu daal di fësal liste yi ngir ñu mën leen affecté ci yeneen i service ñu sax yokk ni am na benn comité bu ñu samp euh, ci wàllu woowee beneen euh, bërëbu fajukaay di hôpital régional bu Fatick foofe nag ami jafe-jafe lool ndax benn bloc opératoire ba fa ne daanaka doxatul am na tey ayu bës li ko nag waral mooy dafa màgget ña feebar nag di fa dem di xaar ba tey dal ñu mun leen a opérer waaye e, saa su ne rek dañ leen di delloo seen i kër ay équipement nag ci bloc bi daanaka dafa dal di màgget lool leexalee am na te guja bi moom nag buggul ku ko enregistré te itam buggul wax feebaram góor la goo xam ni mag la bu dëkkee ci benn village bu nekkee ci commune bu Ngayo Xem moom nag nee na dafa sonn lool ci jaabante yi nga xam ne moom lay def fan yi yëpp dañ ko war a te ba léegi mënta nekk ndax bloc opératoire bu hôpital régional bu Fatick daanaka mën nañu wax ni ni fonctionné li ko waral nag moom mi mu ni xamu ci dara moom góor gi nag nekkul moom rek moom moom mer ci situation bu ni mel Bidjine Gueye Fatick la dëkk moom itam nee na xam na nit ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci situation bu ni mel te ba léegi kenn mënu leen opérer. surtout bloc tëj na depuis ñetti loolu mooy dëgg am nañu ñun mbokk yoo xam ne bloc bi tëj gi mu tëj gàllankoor na leen ay mag lañ am naa un vieux de 76 boo xam mais dafa am euh, problème urologie dafa war a opérer vraiment te sonn na ñu ne ko urgence rek la ñuy jël mais ñun dañ jàpp ne loolu dara gunu ko nekk urgence li ciy gën a gaaw mooy ñu interpeller son son excellence le président de la République. fi mu ne ñiy xaar ku leen opéré bëri na ci région bu Fatick kilifa yi nekkee ci hôpital bi nag di wax ne jafe-jafe bi li ko waral wàllu équipement rek la ndaxte matériel bi daf ci am loo xam ne dafa xaw a yàqu ndaxte li ñu koy utiliser moo bëri. Babacar Mané moom mooy directeur hôpital régional bu Fatick. depuis un mois. a a. xam équipement. bu yàggee dafay dafay usé wu. yooyu day jëmi jamono dañ koy war di remplacer. malade dañ leen a programmé euh, le temps que bloc opératoire bi gën a a ñoŋ ci wàllu équipement. waaye nag nee na césarienne yi ak yenn ci ay urgence ñu ngi leen di jël. ñu ngi urgence ñu ngi leen di jël macha allah correctement. ministère de la santé et de l' action sociale nag ñu ngi xamal ne ñu ngi def lépp pour régler problème bu ni mel buñ sukkandikoo ci directeur hôpital bi moom sax nee am na loowu matériel bu njëkk bu ñëw te bu yàggul dara rek situation bi dana ñëwaat mel fexe ba amal euh, amal foofe ab bloc ba euh, jafe-jafe yi daal di fa jóge ñu déglu mi di Babacar Mané ak Aminata Goudiaby comme hôpital bi day màgg waa luxe développement ñi ngi ñuy waaj a tabaxal aussi ñaari bloc opératoire pour waa maternité bu boobaa maternité dañuy dem seen bloc bopp comme ça dinañ libérer encore ay salle d'opération pour que maladie aussi seen prise en charge gën a a yomb te loolu aussi chantier la yoo xam ni ministère de la santé war na ko commencer normalement dans un mois pare na appel d'offre def nañ ko bu boobaa aussi bloc opératoire boobu aussi dafay indiwaale beneen service de néonatologie bu nekk ci biir dina gën a yombal en tout yi nga xam ni ñi ngi gën a ñëw ci hôpital Fatick euh, hôpital bi gën am ay jumtuwaay yoo xam ne dina leen gën mën a taxaw juróom-ñaari simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci rajo bi ngeen tàmmu RFM pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñay liggéeyi Expresso Sénégal ñoom dañoo fa yéene amal seeni i ci ay bës yu ñu dégmal ndax dal dañoo àndul ak li nga xam ne moom la directeur général ba daal di wax ne dafa bëgg licencier maanaam dàq liggéeykat yi foofee ndax euh, ñàkki koom-koom euh, waaye nag coordonnateur bu délégué personnel ba nakk ne loolee amul ndax société ba di Expresso Sénégal am na koppar bu doy ngir ñu woy di liggéey foofee Maguette Sow Maguette soo dem na fekkee démb seen i waxtaan ñu déglu ko. Sénégal yi dinañu amal ab grève ci fan yi di ñëw ginnaaw ba seen directeur bi xamle ne dinañu dàq ñenn ci ñoom loolee li ko waral di ay jafe-jafe koom-koom yu entreprise bi di jànkonteel bu ñu sukkandikoo ci Babacar Ba njiital délégué yi. sunu kilifa yi am projet boo xam ne dañu bëgg a wàññi employé te ci wàññi boobu dañ sukkandiku ne ko entreprise bi dafa nekk ci ay jafe-jafe motif économique suñ fi génnee foog ñu déposer préavis de grève pour euh, en fait attirer de de nos amul benn problème mu xaalis. leeru ñu analyser parce que aujourd'hui soo xoolee matul sax deux mois yóbbu nañu fi benn team building invité employé yëpp yóbbu leen fayal leen prêt d'hôtel dafa lu ne wax ñu ne situation baa ngi changé et que entreprise baa ngi yëkkati après deux semaines ñu dellu ne ñu entreprise dafa nekk ay jafe-jafe donc ñun xamuñu fas fu dëgg beneen. liggéeykat yi xamle ne bañu ñu jóge expresso waaye na kilifa yi jiital waxtaan. ñu ne leen nit ñi bañu ñu jóge fii képp ku nga xam ne soxlawuñu nañu ko woo. def moom benn départ négocié pour qu'il y ait yi yokku ci ne bind nañ ba tàyyi waa ARTP ak waa ministère des télécommunications waaye ba léegi amuñu ab tontu. ñu wutali Koungheul foofu nag daanaka am na yu am solo yu fa am ndax fukki million ak juróom ci suñuy koppar. ñu daal di euh, teg ci taabal ngir nag fexe ba yaatal yoon ba jëm ca marché ba dina nag boo xam ne léegi tuddee nañ ko euh, premier maire bu gox boobee di euh, maam Samba Seck wala nag boo xam dina dimbali dem bekk dikk bi gën a daal di yemb maire bi nag ne tamit jox na commune ba ñaari camion ngir ñu mun ci tuur seeni mbalit waaye tamit fexe ba tabax fa ak place publique Alioune Badara Ly ak Omar Ndiaye boulevard bi non seulement dina yombal dem bekk dikk bi dafa bokk ci li nga xam ne dafay taaral gox bi nga xam ne moom la ne. tey ñiy jóge Koungheul ville. ñiy jógee Kanantung ñiy jóge mun naa ne sax Bamba Modou Koura. Diamaguène ñëpp fii la ñuy jaar see pour dem ci marché bu bokk ci yeneen yoo xam ne ñu ngi ci. bokk na ci place de l'indépendance bi. bokk na ci aménagement paysager devanture stade bi. bokk na ci itam aménagement maison de la citoyenne. set geeg set geeg sell gi ñu ngi ci parce que tey maye neen ñaari camion benn à ordure yoo xam ne ñu ngi ko jëndee din valeur de 32 millions jox ko commune Koungheul hors budget la nag ñu jox ko commune Koungheul pour jàppale leen ci wàllu cet geeg cell gi Mame Samba Seck moo nekkoon premier maire Koungheul te yoon yii tamit nga xam ne moom leen ko jagleel tey moom ci magistère am la ko fi indi woon ñu def ko fi parce que kenn la koo xam ne jàpp nañ ne njëriñ bi mu amoon ci population wu Koungheul nekk na nit koo xam ne waruñu seetaan image am di fay ñu waxtaanee wala waxaat leneen di ab réunion bu yaa bi nga xam ne amoon na ca gouvernance bu Diourbel jëm ci recenser lépp lu jëm ci euh, càmm ci mim réew dina ay lim yoo xam ne euh, dañ ko te ci taal bi rek ngir gën a fexe ba yëf yi ñu gën ko xam gën ko ràññee ñi yëngu nag ci wàllu euh, càmm ña nga woon foofu ñu jot leen ci ñaax bu baax a baax jëm ci euh, ci seen liggéey leexal yëg Alimatu Sarr mu doon lu njëkk fii ci Sénégal ab càmbar bu ñuy amal ci biir réew mi jëm ci wàllum càmm gi li la nag ñëw ngir fësal li nga xamante ne noonee la secteur bii di doxee ci ay enquête yu ñuy amal Amadou Ndiaye mooy coordonnateur bu bureau centrale bi war a jëmmal bi le recensement national jëm ci wàllum élevage état su jógee bëgg tabax loo xam ne lii de dee doon mu mën a am ci cëslaay ay ay information yoo xam ne day dëgër day wóor ngir mu mën a tabax ci loolu tabax ci loo xam ne day mën a dimbali population bi yëpp loolu moo tax élevage mënta ñàkk ñu toog càmbar ko def li ñu woy recensement mën a xam éleveurs yi fu nekk ci Sénégal nan lañuy defee seen élevage nan lañuy xontee seeni i jur fekkee wàllu wér-gu-yaram wér gu jur gi ñu xam fu mu toll yooyu yëpp bokk na ci li ñu war a saytu ngir mën a ginnaaw loolu état mën a jël ay orientation jël ay décision ba mën a jëmalee secteur bi ci développement bi nga xam ne moom lañ ci yaakaar ci bile ndaje ñiy yëngu ci wàllum càmm gi daal dinañu gën a tekk baaraam lii di wàllum sensibilisation di andil ay jafe-jafe. wax na ñoom lu ñu doon xaar bu yàgg la élevage dafa nekk loo xam ne dafa soxal askan bi yëpp moo tax bi ñu waxee wàllum recensement de l' élevage doon loo xam ne ñëpp ci yëg seen bopp li ñu wax nag mooy dañ bàyyiwaat xel ne recensement bi suñu bëggee mu nekk loo xam ne day day day gën a information yu wóor yu baax kooku moom foog ñu fexe ba ku ci nekk rek jàpp dugal ci loxoom ñu bañ koo def mbiru ñii wala ñee ba ñu jàpp ne Sénégal yëpp la. gannaaw phase bu njëkk bu recensement bi ñu amaloon ca atum 2013 ab suivi daañu ko amal li li lépp nag tënku ci def ba secteur càmm gi gën a mën a soqaliku jëm ca kanam Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. président Macky Sall doon tam président bu Union africaine di wéyal tournée bi nga xam ne da koy ci dundu Afrique. Euh, tey nag moom mooy gan gu ràññeeku lool sax ci feetu indépendance bu réewum Gabon moom nag di njiitu réew di euh, Macky Sall dina ñibbisi fii ci Ndakaaru ajjuma yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu ne di weeru wut. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbali ak basketboolu góor ñi ak Sénégal mii di waajal lii di quatrième fenêtre bu qualification coupe du monde ca Tunisie ci weeru ut bi lañ koy daal di amal ni ki démb kii di seen entraîneur di Ngagne Desagna Diop daal na siiwal liste fukki jour ak ñeent yi nga xamante ni ñoom la tabagum mu des ñaar yi nga xamante ni leen daal di beddi laata ñuy amal fukki jour ak ñaar ngir mën a bokk ci googule tournoi waaye ni ki démb ñu mu njëkk a wàññi di Alkali Ndour ak di Thierno Ibrahima Niang euh, Sénégal sax euh, tey jii dañu amal jongante xaritoo ak euh, ñii di waa Cap Vert ngir waaja loolu yépp ñu ànd sexo da ñu jot a tàggatu sélectionneur gaynde yi xamal nañu ne am na mbégte ci ni mu gisee équipe bi ak ni ñu nangoo déglu Ngagne Desagana Diop. commencé nañ liggéey depuis le premier. te jour yi moom xam nga chaque fois lu leen nu ñu waxee ñu ñëw ñu ngi ñëw def li ñu war a def yëpp entraînement yi ça se passe très bien en content que effort bi ñuy def yëpp lu ñu war a def daal rek ñëpp ñu ngi chaque jour ñu ngi ñëw ñu ngi entraîné suñu demee hôtel bi ñu noppaliku loolu lañu war a def pour préparer match yi googee nag daan ci toftal la ñetti jongante xaritoo yoo xamante ni ñaar yi seen diggante Cap Vert la benn bi seen diggante ka Égypte ñu di ay partenaires yu baax ngir daal di xool liggéey bi nga xamante ni jot nañ koo def boobu ba léegi Cap baax la comme ni ko xamee ñoom lañ joué ci afro basket bi ñoom lañ joué woon troisième ak quatrième place yàlla defoon ñu gagné leen te dina nekk équipe boo xamante ne am nañ benn grand Tavares boo xam ne nekkoon NBA moom mooy seen main player moom la jox presque bal di joué lépp loolu dina nekk benn affaire bu baax pour ñun suñu préparation ces deux matchs pour Égypte bi tamit jour bu ñu bëggee joué ñun mooy le 22 loolu moo ñu gën a arrangé ba gi nañ koy amal ca stade Marius Ndiaye fi mu nekk nii nag kay tàggat gaynde Sénégal yi wàññi wàññiwaat na listam ba ci fukki joueur ak ñeent liste fukki joueur ak ñaar yi nar représenté Sénégal ci fenêtre googee nag daañ ko fësal gannaaw jongante xaritoo yi nga xamante ni moom la ñuy amalee fii ci Ndakaaru Soda am jërëjëf ñu daal di waxtaanee wàllu football ak fédération sénégalaise bu football bi nga xamante ni démb daal dina génne ab bataaxal ngir indi al leeral ci jëm ci mbirum jaraaf bu Dakar bi nga xamante ni dañu ko daal di beddi dootul bokk ci li nga xamante ni daal moo di coupe CAF bi ñoom nag euh, nee nañu la ñu waroon def yëpp def nañ ko waa fédération ñoo wax lu ni mel waaye mbette la ñu daal di am gannaaw bi nga xamee ni daal CAF daal dañu génne ab bataaxal daal di gàntal li nga xamante ni daal moo di pexe fédération sénégalaise bu football ngir jaraaf daal di bokkaat ci li nga xamante ni daal moo di mbir mi lu ci mënti am rek fédération moom dafa daal di eh, joxoñ baaramatuma ñi di waa Kaflo kon bokk leer na jaraaf moom dootul bokk ci googule eh, compétition di coupe de la confédération eh, kii di Samuel Eto'o di président bu fédération camerounaise bu football doon itam ambassadeur bu Qatar ci lu jëm ci wàllu coupe du monde bi moom nag ni ki démb ak léegi mi ngi fi ni ci Ndakaaru moom nag démb dal na amal ab conférence de presse ngir waxtaane wàccaay googule coupe du monde la mu jàpp moo di coupe du Abdoulaye Diassane Diallo di euh, sagir fi nii ci rajo Futur Média kii di njiite FECAFOOT du Samuel Eto'o lu mu xalaat rek mooy coupe du monde bi ñu nar a amal fële ca Qatar ci ay conditions yu mucc ayib lañ koy amal. mais juróomi at yi mujj man euh, maa ngi woon euh, doxa foofu moom euh, vraiment dund bi dafa neex amul sàcc amul agression li leen di ñaan rek jënd leen seen i billets d'entrée ca stade ba ngeen dem fa ci jàmm seetaan match yi ci jàmm ndax man gis naa ne coupe du monde bi nar dàq ci coupe du monde yëpp lañ nar am ca Qatar. Oh, organique. compétition boobu nag benn yoon kese lañ ko mus joue fii ci Afrique ci atum 2010 la woon fële ci Afrique du Sud moo tax ba Samuel Eto'o di ñaax réewu Afrique yi ñu gën a liggéey rek ngir ñu mën a dalalaat coupe du monde fii ci Afrique. il y a pas de perte du monde mënul nekk perte ndaxte euh, loo ci mënti dugal ci xaalis di nga ko récupérer ba am sax lu ko ëpp quoi moo tax man maa ngi ñaax dëkku Afrique yi ñu gën a booloo gën a liggéey seen biir euh, ngir organiser beneen coupe du monde man euh, dans stade Diamniadio stade bu mucc ayib la. Samuel Eto'o lu mu bëgg rek mooy ñi di waa confédération africaine de football ñu gën a liggéey rek ngir sélection africaine yi gën am place ci coupe du monde bi le. c'est pas ne suis pas euh, nekkul ne kontaanuma sax waaye man li ma gis mooy euh, réewu Afrique yi dañoo war a gën a yokk seen niveau bu ko defee ñu gën a am ay place ngir euh, participation coupe du monde yi gën a méngoo ak ñun suñu mbëbët. Samuel Eto'o mu ngi Ndakaaru mu ànd ci ak benn délégation bi nga xamante ni Qatar la bàyyee ñoom daal dañuy daal di visiter rek ay réewu Afrique yi nga xamante ni ñoo daal di qualifié ci coupe du monde bu ñu nar a joué ci dëkk boobu Cameroun ci la bokk Ghana Maroc ak Tunisie. ñu dal di waxtaanee phase nationale nawetaan yu ONCAV yi ñu koy amal fi nii ci ndakaaru ni ki démb jongante jotoon am guy gi bu Dakar moom dafa daal di am ndam ci diggante ak Manko bu Saint-Louis 4 1-0 moom la bokk jom bu géejawaay daal di am ci diggam mag ñi di waa jàmbugum euh, bu Fatick leneen li nga xam ne mën nañ xos ci wàllu résultat moo di Ifragel bu Kaolack moom itam démb mujj naa am ndam ci digganteem ak ñi di Mama Xoro bu Kédougou 1-0 1-0 diggante Mandela bu Pikine di représentant Ndakaaru euh, ci digganteem ak Jaloore bu Thiès euh, dëkkandoo bu Louga moom itam daal na am ndam démb 1-0 ci digganteem ak Tantanji bu Matam Ngardu Ndar gu ndaw ndaw voilà Ndargu ndaw bu Dakar moom itam eh, dafa daal di match nul démb 0-0 diggante ak jàkkaarloo bu Kaolack eh, Koussi di représentant bu région bu Sédhiou mujj naa am dam démb ci diggante ak abattoir bu Kidira ñaari bal ci benn 2 3 3 moom la jama bu Kébémer daal di daan ñi di waa jàmbaar bu Géejawaay ki ñooñu moom Seydou Nour sa waa dëkk lañu mhm. jàmbaar bu Géejawaay xam nga leen bu baax xam nga leen dañ leen duma de waaw mais mënul ñàkk nañu nañu gën a góorgóorlu rek jama <laughs> yàlla ñu doon defal bagage keneen rek. yàlla baax na waaw mi ngi noonu mën a rattraper laata yëf yi di jeex. waaw du dëgg. kon bokk fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram Seydou Nourou. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo yi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di mbokk yi ñu tàmbale ak musique tey ji ci suba rawatina rap ak single bu bees bi di euh, jaajëf mu di euh, morceau boo xam ne Abdel ji moo ko daal di euh, def muy nag gulet ab artiste rappeur jógee ci banlieue bu Ndakaaru di def ab duo ak star planétaire bi di Akon ñoom ñaar ñëpp nag ñuy delloo njukkal seen i fans rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen gëm bi ñu tàmbalee seen carrière musicale bi ak léegi Abdel ji bokk ci association Africulture urbaine euh, daal di réaliser noonu benn ci ay mbébétam Ndongo Ka mu daje ak moom. wayandoo ak ay kon ci benn morceau bokkoon ci mbëbët yi gën a rëy ci Abdel ji. j'ai toujours rêvé ça. tey jii nag yi lay gént mujj naa soppaliku nag doon dëgg. mësuñu xalaat nit ñi un jour dina ñëw ñu def ak ñoom son mais comme lima ma ci son bi rek bu yàlla ne waaw lépp mën na nekk et ci liggéey la ñu fekk quoi. jaajëf doon nag turu morceau bi nga xamante ni moom la Abdel ji wayandoo ak ay ci ñaar fukkeelu atam ak juróom-ñett ci la Abdel Dji daal di am nag sensu liggéeyandoo ak ku demee ni ki Akon mi nga xamante ni ci wàlluk musique turam daal dinay àgg fu ne ci àdduna bi wërngal këpp moom gone gu juddoo nag ci diwaanu Pikine daal di ràññeeku loolu ci projet bi nu tuddee nag MVP. mun naa ni link bi foofu la jógee Mbacke dafa déglu sama benn son muy sama live moom la tegal Akon affaire bi marqué ko après ça si la dégg aussi jaajëf bi sama son la woon au man kase affaire bi neex ko et mu ne voilà ça moom tamit mu profité. jaajëfal gars yi. Abdel ji ni lii mu am nag occasion la boo xamante ni da cee war a profiter nag bu baax ndax mën na koo may ngir carrière mu mën koo nag yóbbu fu sori. ñu ngi ciy séntu aussi ay tournée internationale bëgg nañ tamit musique bi gars yi xam ko kon ñun nu ñuy jële musique américain bi di ko conse wala français bi. Abdel ji ni lu mu xam wala lu mu mën min ko jàngee nag ci Africulture Ban ci atum 2008 nag ci la dugg nag ci bile organisation bi ko may lii mu daal am ni tey. c'est école quoi parce que man lépp lu ma xam tey Africulture culture moom moo xamal quoi. jéegoom nag yi gën a rëy mi ngi ko teg ci atum 2015 ndax ci googule at ci la daal di génne nag li nga xamante ni moo di cassette yi mu njëkk a def. sama premier maxi bu ma génnee muy maxi de sept titres def na ay compilation. niki Abdel ji mu am tamit yeneen i gone yoo xamante ni ña nga ca agriculture urbaine di yëngatu ci wàllu culture urbaine boole kook mën lool li ñuy def. organisateur festival Dakar Court ñoom lancé nañ appel à candidature ngir promotion 2022 Dakar Court critique mu di euh, formation boo xam ne kenn du fay dara ñu jégleel ko critique cinématographique ak. itam ñu tolloog fanweer ci ay journaliste culturel yu jóge ci euh, Afrique ak date limite de dépôt de candidature bi nag jàpp nañ ko fanweeri fan ci weeru août gi ñu nekk formation bi ci boppam dina door ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre gi ñu dugmal ba fukki fan ci weeru euh, décembre atum 2022 mbokk yi fi lu ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM RFM ñetti yéenekaay yi. seen parfum yu neex yi di safir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bii di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj ban premier ministre ngir Sénégal observateur ne ndey mbill gi ci boppam war koo tànn sax di président Sall daf koo jaaxal boobee tontu jamono yi ndax nag su weesoo jafe-jafe dund ak coono bu xoj askan wi ba mu yëglu woon ca local yi 23 janvier 2022 léegi leneen lu ñëw dolleeku ci xat-xat yi président ci boppam mooy jafe-jafe yi politique ak toogoom yi ruus rek ca penc ndawi réew mi ndax mbootaayam benn bokk yaakaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom la ñu ci député ba juróom ñett fukk ñaar ñàkk nañ fi kon ñeen fukk ak ñetti toogu donte xaalis bu bari génn na ci campagne bi ak it ay wàlliyaan di transhumance taat nag premier ministre nag observateur gis ne ci jël benn plan bu njëkk ba moo doon Amadou Ba waaye ginnaaw si la ko ay yàqkat xajamal xëy na ñu ne ci diggante bi yëf yi defaruwaat yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne bokkoon na it ci xalaatu président teg ku mel ni Abdoulaye Seydou Sow ministre urbanisme wala xalaatu delloosiwaat Mohamed Boun Abdallah Dionne journaliste analyste politique bi di Babacar Dionne moom ci yéene kaay bi ne ñaari pexe dong le président am benn mu tànn benn responsable benn bokk yaakaar wala affaire directe ku askan wi ràññee lool ci politique wala mu tànn ab technocrate ku taxul ripp ci politique ngir géréel ko mbir yi ndax nag ab technocrate naam dina am fu mu sooxe waaye dina leer ci bopp yëpp ne du kuy yóotu toogu président docteur Alassane Ndao moom dib docteur ci wàllu sociologie politique ca UGB ba tey ci yéenekaay bi gis ne tànnu premier ministre ci président Macky Sall mu ngi gën a wékku ci ndax ku muy àndal waajal palwaatam 2024 lay doon wala ku koy takkale bagage ya ngir ak fégalam 2024 la tribune lu jëm ci tànnu premier ministre ak président assemblée nationale gis ne président Sall xobam yu mujj lay atre yéenekaay bi nag ne ministre yu baree ki DG daañu tëb assemblée nationale gay ñëw kanam gu bees geneen gi muy àndal le vrai journal la mu ci gis mooy occasion la ngir Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ñu am amnistie fi leen koy jaare am ba faw wala ñàkk ba faw mu ne kilifa gi Abdoulaye Wade moom source aané ab buuxante la jamono yi ngir am audience ca moom liste bi gudd lool donte ba fii nag moom góor gi waa partem PDS a coalition bi rek la dalal gum lu jëm ci taxawal nag ab groupe parlementaire ci péncu ndaw réew mi ak yeewi yéenekaay bi ne du lu nu waxtaanee gum waaye xalaatu góor gi mooy wéyal ànd bi seen digg ak Ousmane Sonko ki gaayam HCCT ak njiit la soxna Aminata Mbengue Ndiaye def li wolof naan tontu du forox indil nañu tontu ñi doon wax ne HCCT këf la deful dara ci Sud Quotidien ñu defa bilan juróomi rapport yu ñu def ci juróomi at ñeenti contribution juróom-benn étude ñaar fukk ak juróom-benn xalaat di avis ñu lënkaleeg juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti digle di recommandation baaxe ko président ci Le Soleil Papa Mayel Thiam premier vice président HCCT di ci rëcc mu ACT ci umple lool njariñ la Les ko moom dalal Papa Samba Mboup bennoo la gis ne ñooy ñi may opposition bi seen ak di monté bi jamono yi maître Abdoulaye Wade Papa Samba Mboup ne daa war a ñibbi si toog fii Sénégal ndax moomeelu askan la patrimoine ñëw fii di dalal nit ñi di gisanteeg nit ñi ndax gàddaay gi baaxul ci moom Pape Diop Pape Samba Mboup ne jéego politique bi mu def fan yi bu am solo la bu lalu ci politique waaye bëgg sa réew gouvernement bu bees bi ñuy xaar ci président Macky Sall nag mu ne gouvernement bi ñëpp xaar rek lay xaar ci moom maanaam gouvernement de rupture bu dogoog la fi woon ci wàllu doxalin wàllu wér gu yaram direct news xëy dalal mu Moustapha Ndiaye muy wax ci tëjug hôpital Le Dantec xaaju hôpital ba la ne la ñuy yeesalaat di réhabilitation la des ñu jaay koy privé dogal bu garaaw la mu ne ndax hôpital Le Dantec patrimoine historique la mandarga bu am solo ci wàllu kër docteur médecine moderne fii ci Sénégal ci képp ku yeesalit war nga bàyyi xel lu ni mel dogal bu graaw la ndax ci gis-gisam mu ne wàllum paje ci boppam chaîne bi yëpp ay désorganisé ab diir ci Sénégal dogal bu garaaw bu lalawul ci xol laa biir bu nguur gi ci boppam mu ne di gàddu responsabilité oral bi professeur Moustapha Ndiaye ne xelam ci boppam sax moo trouble jamono yi ndax laaj ba ne mooy lu waral pataaralug médecin yu Sénégal rawatina universitaires yi wàllu sport Sénégal am gan Samuel Eto'o ci bés bi le jour mu ciy xamle moom président fédération football bu Cameroun di ambassadeur mondial Qatar 2022 li tax mu bëgg lool Sénégal Sadio Mané mu ne jamono yi mooy joueur bi gën a xereñ ci àddina ci les échos muy baamtuwaat kàddu yi moom Samuel Eto'o Sadio Mané est le meilleur joueur au monde mondial 2022 ca Qatar Sénégal nag mu ne mooy tête d'affiche bi yeneen réew Afrique yi topp ca ngir yóotu gi ñeel coupe bi ñu jeexale xew-xewu jamono l'observateur mi xëye ay trafiquants yu am fit lool doon nas mooy yebbeeg yàmbaa ca ginnaaw palais de la république direct news ne waaw téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari kilo yàmbaa lañ bëggoon yebbe débarqué foofu ca ginnaaw palais ba ca ginnaaw nag laa wax waxuma ca biir seen parfum yu neex